Eh, Babacar lan moo la dugal ci ci MMA. waaw ñun dañuy siiwul euh, arts martiaux mm-hmm. nekk nañ si man ak loo mm, après loo woo ma contacté ma ne ñu am nañ benn phase à euh, team boo xam ni moo ngi ci ay combattant mm-hmm. après si leen si nekk di entraîner nànk-nànk mm-hmm. après si leen ñu amal suñu première compétition ñu ngi ko amee Congo. looloo tax euh, ñu gën a suivre sport bi la moo ne da ngaa tëb tëb rek dugg ci MMA defoo bi demee na art martial. ah ok non. Ah. def naa def naa kung fu. Uh-huh. Euh, def boxe française. après ñu dugg ci MMA. ok kon kung fu nga def ak boxe française. après nga après nga ñëw boole ko ak pour mu MMA. mix martial art léegi mix martial euh, art moom. kii eh, avantage yi lan la lan mooy avantage ba ngeen ba ñëpp léegi daw dugg si ah am na avantage am na avantage mm. euh, si ku nekk mm. Afrique mm. ndax soo de eh, surtout ma Sénégal pour ñu gis ñu carrément day metti ndax boo xoolee ñun dañuy ko Sénégal dafa amaguñ fi benn compétition boo xoolee dañuy génn rek lu ñu amagum yëpp dañuy génn te gisaguñu avantage bi fii Sénégal. mais or ñoo ngi siy am avantage bu baax. léegi si côté technique bi am am na avantage léegi côté côté xaalis bi ndax yéen li ngeen di gagné ba keroog bi nga gagné am nga indi indaale nga lu bëree bëri bëri. waaw ñoo ngi sant yàlla donc. Ah. ñoo ngi sant yàlla. <laughs> nga wax. <laughs> xam nga affaire yi daanaka nit ku nekk sa milieu bu nga nekk doo wax. ndax saa yaa ngi fi. man naa ma ma bëggee ma wax nga <laughs> <laughs> <laughs> waaw nit ku ne euh, am na leen loo xam ne yaa ko sa sa vie daal. Mm-hmm. Mm-hmm. mais daal gis ngeen seen bopp. waaw ngi si gisagum suñu bopp. nànk nànk de ndax euh, dara xëyul xëy rek sotti. Mm-hmm. Euh, lépp lépp danga koy jaar si yoon bi rek ba yàlla di dogal incha allah ba ñu siy doon bëgg nañ si doon ay champion daal. mais mais lan nga def ba gis ci savate bi ak. MMA bi lu tax nga tànn MMA bi bàyyi safat bi wala yaa ngi pratiquer safat bi léegi. non safat bi euh, soo xoolee safat française bi ñun dañ doon entraîner fii euh, te compétition yi taxu ko demee noonu. Mm-hmm. mais kën fu man maître Modou Gueye mooy sama maître. Jacques Gabriel moom arbitre la ci. mu fi euh, nekkoon boxe française mais maître Modou Gueye mooy sama maître safat bi mosuñu see compétir mais maître kën fu bi lañ ëpp lu ñu compétir ak boxu boxe chinois. ak mm-hmm. ëpp ñu compétir. waaw ok. Choy waaw. xanaa amul fii ay compétition yu bari. fii ci Sénégal. lan boxe française bi. boxe française bi non mosaguma si compétir fii. Eh, Sénégal war nañu invité sax parce changé président. Mm-hmm. ah dañu changé ah, président mm-hmm. xam naa jaga fi nekkatul moo tax yéeguñu ko. ñun seen magam bi moom moom magam waaw mag ji arbitre la moom. moom mooy directeur technique bi. d'accord boo xoolee euh, kënfu bi laa gën a suivre que boxe française. ak. Euh, boxe anglaise bi mais anglaise it man duma ma euh, compétir gu ma si kën bi laa gën a siifur ak MMA bi. ndax kën fu si côté Sanda moom xaw na. Sanda waaw na mais ban avantage la ko kën bi di may. buy pratiquer MMA bi ban mm-hmm. avantage ndax boo xoolee Sanda. Mm-hmm. Sanda am na pied point lutte moom ngay fekk si MMA lenn kase si manqué mooy coude yi. Mm. kase. Sanda mooy benn bu combat la buñ buñ créé depuis 1983. man MMA MMA man euh, comme ñii war nañ leen a jàppale bu baax. parce que man ñi ñi nga par contre ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom Bombardier ñooñ ñooñ dañoo war a baax. <laughs> mënuñu wéq. dafa laaj wéq. ba ngeen indi saa Bombardier. <laughs> non sama waay la. du jóg. <laughs> c'est que boo xoolee ñii nga xam ni def nañ aar. boo leen seetaanee ñuy combat nga xam ni lii ñuy def. mën nañ ko tey jii boo seetaan MMA nga gis ñi nga xamante ne bi def nañ. aar dëggantaan bu ñu kii da ngay gis ni combat yi day neex quoi mais bu fekkee ne bi dañoo jël suñu mbëri comme suñu mbëri yi nga xam ne ñoom lañu kii bu ñu demee ñoom yanu dóor dóor loolu la nag non comme ni ñii di combat day ñee mënuñu ko te nag wax dëgg fa yàlla nag bu dee bëgg nañ MMA bi jëm ca kanam il faut que ñii ñu xool nu ñu def saay mënu leen a fexe am ngeen fii ay kii ak parce que MMA war na mën a am fii parce que xaw ma lu tax xaw ma làmb moo ko bloqué xaw ma nu mu demee ah, noonu parce que MMA bu fi amoon parce que daa mel saa MMA daf fee war a am ni bu ma gisul gis naa si benn site euh, Doudou Ndiaye jekkoo euh, di kaas pour waa jekkoo làmb ay woon tey ci suba tey ah? euh, ñu bañ a dugal MMA gis naa ko na fi ah, dugg MMA dafa war a dugg parce que MMA ñoom yii ñu def nii il faut loolu jóge fi yëfu caaxaan la làmb yi MMA dafa war a dugg te loolu saa yi il faut ngeen xeex ko man pare naa pour jàppale leen. ci hmm. ah. ci. ci naka yow boo ci doon jàpp noo ci jàppee. non ci que MMA dañ war a jàpp parce que attention MMA bu ci jàppee man gis naa ni. ñoom Pape Djibril yi ñu ngi jàngal ay booy yu bari. Mhm. yoo xamante ni bi mën nañu nekk ay fiti combattants. comprendre nga parce que sinon xam nga booy yi ngeen di jàngal duñ dem ci làmb ja di bëre. parce que euh, li ñuy def fële rek la mën a adopté wu te nag buntu la loolu est-ce que yéen a ngi ci côté yooyu. waaw côté boobu ñoo ngi ciy liggéey bu baax. Euh, hmm. ndax boo xoolee looloo tax ñu ànd ak Laurent. ndax euh, am na benn Teranga Fight Team boo xam ni nañ fi entraîné. te bëgg neen démarrer loolu pour jàppale ñu fi nekk Euh, di lancer waale loolu pour jeunes yu fi nekk. teraanga fighting teraanga fighting teraanga fighting moom teraanga ah. nan la mën a ànd <laughs> ah, loolu lañ ko xoolaat. mais mais maître mos nañ fi invité benn waay. bu hmm. doon wax ci mbirum MMA. mais nee na xaw ndax yaa ngi koy fàttaliku nee na mënagunu organiser fii ay ay galaawu MMA ak ah. yooyu ndax mi ngi doon wax ay problème mu euh, autorisation mi ngi doon wax daal niveau bi Sénégal war a kii je sais pas xawma ma nag ah. ndax léegi loolu dañ na wala. non côté boobu nag dese nañ dañu dese nañoo leer. ndax hmm. ñun daanaka ñun daanaka euh, dañoo am benn manager boo xam ne moo ñuy jàppale si yooyu ñun dañuy contacter ñu am ngeen combat ñu dem combat. à l'extérieur wala fii à l'extérieur hmm. mais fii amaguñ fi combat. fii wax nañ ko na ay compétitions yu fi amoon na. Ah? waaw fii am na ay compétitions yu fi euh, yoo xam ne kii la du poro. ah, ah loolu la waa la waa ji wax na ko fii kañ dama la bëggoon laaj mooy mooy euh, yow fan ngay compétir pro wala amateur. pro lan mooy différence compétir pro ak amateur. Euh, différence bi mooy boo jugee boo jugee amateur dugg poro beneen nu beneen niveau la mooy euh, boo nekkee euh, boo nekkee amateur daanaka mun nga dajanteeg ay élèves yoo xam ne ñoo ngi jàng mais boo duggee cadre poro mun nga dajanteeg maître mun nga dajanteeg ñoo xam ne ñoo la. ñoom ñoom rek Reug ban ban lii parce que Reug moo doon combattre fii à moom lan la doon pro la doon combattre. mais sànq da nga ne fii kenn du fi combattre pro. fii. waxuma la kenn du fi combattre pro amagul combat amagul combat da ne ma combat amateur ak pro. lan mooy seen différence. loolu nga ma wax. Hmm. différence amateur. Hmm. mooy mun nga day euh, élève ak élève. waa c'est bon loolu mais ça veut dire que fii sànq bi nee du am régulièrement fii. xam na dal la laaj loolu. nga ni non parce que fii warul am combat pro combat amateur lay am. léegi loolu la léegi li ma lay li ma lay laaj. waaw euh, mooy euh, làmb kii événement est-ce que wóor na parce que man damay gis ay coups yoo xam ni nit mën na cee faat est-ce que loolu ñu ngi est-ce que am na coups yoo xam ne day interdit la te may gis n'importe quoi ñoom boobu ak n'importe quoi la ñuy dóor maanaam dóor yi du organiser. xam nga coup perdu mën na am dal foo xam ne est-ce que MMA dañoo am fu ñu tere ne fii kenn du fi dóor fii kenn du fi lii est-ce que yooyu am na ci MMA. am na. comme fan lañ juddoo euh, man. ku interdit daanaka boo xoolee ginnaaw kenn du fa door nit parti kenn du fa door nit. ginnaaw yow président ngay gis kuy def nii ñoom rek nag. boobu ñoom calculé wuñu door yi de est-ce que ah. ni ñuy dóoree. Mm-hmm. ñoom ni ñuy dóoree rek lañ tere colonne waaw fii si loos bi nii mais est-ce que feneen saa doo gis ci MMA ñu dóor fa nit. Mm-hmm. mu jaaree fa est-ce que loolu man parce que MMA ni ñuy dóoree dafa garaaw. ah garaaw na garaawul si boo. si boo koy mënul ñàkk si sport de combat. accident mënul ñàkk si sport de combat eh, sport de combat boo ci gis. day am accident. muy boxe bi muy MMA muy sanda boo mënti gis day am accident mais euh, lenn la mooy euh, ñun dañ see nekk pour yëkkati suñu drapeau réew. te yàgg nañ génn di yëkkati ay Demba Seck. ay champion la ñoom. yëkkati ko ci MMA mhm. metti na. te ñoo ngi def. gis naa kii euh, saa <laughs> yëkkati ko ci comédie rek. saa <laughs> gis naa aussi comme euh, comme ni ñu wax ni ci MMA ñu jàppale leen mais Sénégalais yi des fois. Mm. foog nga génn pour ñu door laajee parce que gis nañ ci euh, ministre ba Diattara je crois. léegi mu mu mu mu recevoir ku champion du monde defe naa MMA. Sadibou Sy mais moom dëkkul judoowul Sénégal quoi. ñu recevoir ko mais yéen est-ce que mos nañu leen recevoir. non duñ leen faa. waaw kii waaw waaw cest loolu champion du monde peut-être xam naa niveau bee taw la foofu wala ñoo ñu noo gisee loolu. ah man lu ma ko gisee mooy euh, war nañ ñu gestu daal. Hmm. ndax ñun fii la ñuy entraîner suñu préparation yëpp fii lañ koy defee. fi ngeen defee fii la defee suñu préparation yëpp après soog a dem foofu dañuy dem compétir moo ñu yóbbu dañuy delloo si waat suñu réew. te yéen a ngi dem yéen ngi def jaloole ñoo ngi ñoo ngi ñëwaat. waaw ah, sport ji amul kii premier ministre mooy assurer intérim bi. Ah, amatul ministre amagul ah, ministre de premier ministre xanaa mhm. eh, ce que organisation bi comme ni ko Omar doon waxee léegi bon bu ma déggee fi mu waxee euh, comme. Sénégal aussi lim la laaj léegi nga ne euh, presque du bari fii pour euh, kii bi euh, professionnel bi est-ce que du yéen ñi encadré affaire yi ñoom la rang ñeneen du fexe ba Sénégal aussi di organiser yoo xam te ni peut tax ministère beeg yooyu gën see gën see jàpp ñu parce que MMA aussi ci benn côté ñu bari dañ koy dégg mais comme ni Sadou laaj ndax danger la ñu bari ñemewuñ ñemewuñ ko aussi est que bu dee lu ñuy def compétition bi ni ñuy gis ne ñoo ngi siy génn est que loolu bu gën a tax ñu gën leen jàppale waaw ndax booy xool ñun ñi daanaka booy xool ñun cadre euh, combat yi leen suivre loolu ñoom Laurent ñoo koy gën a suivre loolu euh, wàllum dugg ñu xam xam ñun ñooy ñan loolu ñun du suñu domaine ñoom Laurent léegi léegi yow comme bu dee du sa domaine côté technique moo si kii léegi euh, seen entraînement nan la comme nu ñu tuddee boxe taille est que di ngeen def yooyu renforcement corps bi comme ñoom dañuy jël ay banaana ak ay ay ay ay ay dara di si dóor pour seen yaram dee waaw <laughs> taatu banaana yooyu ñuy def mun taay box ak yooyu <laughs> ak bant yooyu di si dóor comme Shaolin Shaolin ah. soo yooyu est-ce que yooyu yéen di ngeen ciy def pour renforcer wu pour seen yaram gën a gën a dëj am yooyu jaru ko si yéen. waaw ñun boo xoolee ñu renforcement musculaire rek lañ ëpp lu ñuy def moom. mooy dem salle. dem no dañoo am benn course boo xam ne moom moo ñuy dimbali si yooyu. Hmm. renforcement musculaire yi. Hmm. Euh, mais doo dóor dóor kii moom ñoo ngi koy def mais ay garab di man kii wu ma ko daal. <laughs> baaraam yi damm nga ciy jëlee. <laughs> sànq yow ak ñin fi jot a invité yëpp ñoom Laurent ak ñoom ñëpp ku ñëw moom day wax ni day def na armation bii bii bii bii léegi bu ko dajalee moom après ci lay ñëw def armation ci lay ñëw def NMA léegi ñu gis ñoo xam ne tey jii lo jaaruñu foofu est-ce que c'est obligé nga def armation doog a ñëw def NMA. oui mais pourquoi Reug Reug gisuma fu mu defee armation Bombardier gisuma fu mu ko def pour pourtant ñi ngi def NMA. lan moo xew. ndax boo gisee euh, Bombardier lan la fii lutteur bu mag la sax fii ah, ah. mais pour ñu jàppale ko day yomb mais ñun pour ñu jàppale ñu duñ ñu gaaw a gis ndax ñun dañuy nekk ci compétition bu ne moo ngi am Sénégal le Sanda fu ne lay organiser compétition boxe fu ne lay organiser compétition mais pour pour nga gis fa télé bu si euh, si suivre seen compétition sax day jafe ah, mais lutte bu amee dañ koy suivre léegi euh, xoolal champion rëg-rëg mu fi nekk. ñu ñu xam nga siiw na fii ñu ne ko am ay utal leen la combat MMA fee léegi xoolal moom force dañ koy jël ak lu mu ti doon ndax doon na fii dara. Ah, maanaam maanaam popularité am la ñuy soxla. foofu du soxla euh, kii ah. polyvalence am wala exercice yi muy def. mais popularité am mu mën a jaay événement bi. waaw man laa gis. mais rempli mais ñoom duñ remplir toutes les conditions pour def MMA. mais à part leur popularité mais c'est vrai comme peut-être yow da ngaa yoru mënoo ci egg mais loolu mooy indi problème bi léegi ñiy def yéen seen sport yi nit ñi da koy seetaan rek di tàccu ñii di dóor nii di li mais yéen lan mooy seen système de pointage loo xam ne tey jii boo leen ko defee ñu ne diw daan na diw wala diw am au point kii daan na kii comme ni mu amee si boxe ak yeneen yi yéen lan la. coup euh, yi day marqué point boo ko daanee day marqué point boo ko téyee au sol lu yàgg. ñaata loo comptage bi foofu lan la. Euh, points yi nag. wala hmm, c' est ça dépend appréciation de l' arbitre. de l' arbitre ah, bu xoolee ni waa ji mi ngi en danger. waaw <laughs> ah bu xoo bu ar mun nga doon nit ki foo xam ne arbitre bi si boppam mooy ñëw àtte combat bi. wala moom mu nekkee en cas. mu lever point waaw mu xam ni mu xam ni ah, kii mënatul combat. léegi yow la ñuy dañuy ke yow yaay jël. kii wala combattant bi lever le point comme ni nga koy defee wane ni. waaw mënatul mënatul waaw mais ban moo ci gën a yomb si mu dóor mu kaw moo ci gën a yomb am waa ji foog mu bàyyi na bàyyi na abandonné ñoom Bombardier yi def yomb mais man dama koy seetaan dóor mu kaw yu gën a métti ñii élément dafa métti mais comme Bombardier ak kii ñii moom moom affaire day yombal dóor daan da wàññi këlëb ñu ne jeex na da <laughs> mais moo gën a métti non dóor mu kaaw ndax euh, nit ki da ngeen di xeexee si kaw a ngeen soog a yegg si suuf ndax boo xoolee si kaw bii mooy gën a metti ndax dóor mu kaaw mun na fa am mais buñ la yóbboo si suuf ay kele de bara mun na am mun la jàpp foo xam ni doo fa mun a rëcc da suñ la étranglé doo mun a génn foofu yooyu avant da ngay mun la fa téye ba nga xëm wala mun na la fa téye ba ba nga tappe boo tappee après arbitre bi mooy ñëw àtte jox kee ko combat bu ñu la téye fenn bu ñu la étranglé nag foo xam ni waaw arbitre bi moom mun na daw si xam ne kii léegi mu de euh, léegi mu créer ko danger wala dara moom mooy ñëw àttee combat bi. yow depuis combien d'années yaa ngi def MMA. yaa ngi koy pratiquer. Euh, deux ans. de temps en temps da génn am nga ci ay trophée ah, ak yooyu. ndax euh, bañ dalee génn ba tey daanaka bu mu nekkul ay cinq mois si lay yam ndax ñoo ngi ciy ñoo ngi ciy gis suñu bopp bu baax ndax euh, ndax boo xoolee affaire bi sens la daal. comme combat yi sens la. ndax di nga si gis ñoo xam ne. léegi li nga doon muy préparé def mois de. Hmm. est-ce que ça amatul hmm. sax boo xoolee di nga gis ñoo xam ni ñoo ñu gën a yàgg si ci si aar bi. Hmm. te ñun ñoo leen ëpp combat. léegi yow fi mu toll ñaata combat nga defagum ak ñaata victoire ak ñaata defe loolu moo xoolee Euh, ñun def nañ six combats. six combats waaw. Mm, ñaata victoire quatre victoire benn défaite benn match nul. ah c'est bien professionnel ah. oui euh, yow lan mooy sa. waaw wala ñu dañu nga kii lan mooy sa sa sa sa sa lan nga xam ne sa combat yow moom moo lay si génne à chaque fois. Euh, côté lutte bi la wala boxe bi wala ban wala technique la wala mm-hmm. benn. waaw ah, man moom sama sama fort mooy taxaw boxe pied point. pied point mooy sa fort. pied point mooy sama fort. Mhm. te dama lu si ëpp moom la ñuy gën a liggéey si suñuy combat yëpp ndax nit ki moom luy sa fort moom ngay jéem a développé. ok léegi euh, euh, lan ngay tàggoo pour sa. waaw naa ngay tàggoo. waaw maa ngi leen di jaajëfal bu baax. Mhm. di kontaan bu baax si invité bu ngeen ñu invité. Mhm. Euh, di ziar ñëpp ndax di di nuyu sama metre maître Modou Gueye. di nuyu waa. waa Teranga Fay Tim te sànq waxoon ja waxoon naa leen ko mooy dañuy waajal ubbi benn salle boo xam ni pour entraîner la ba ñëpp ñoo ngi ñoo ngi ci woo combattant yu bëgg a avancer bu baax ndax boo xoolee mardi ak jeudi lañu ci entraîner di jaajëfal ñëpp daal di ko kontaan si gars di nuyu Anta Samb kësu Anta Samb ak Elisabeth ndax boo xoolee ñoom ñoo ñuy gën a jàppale si côté lutte bi lutte bi ñoom ñoo ñu ciy jàppale bu baax Anta Samb ak Elisabeth Euh, jàpp jaajëfal maître Pape Pouye boo xoolee moom moo ñu jàppale si côté coude yi lépp moom moo ñu si jàppale. ñoo ngi si jaajëfal ñëpp di remercier maître di nuyu loran mm-hmm. di nuyu Demba Seck bu baax ndax moom tamit moo ngi ñuy jàppale si contact yi bu baax. d'accord waaw Betty loolu la ñu mm-hmm. indi woon tey MMA di euh, xam naa mu ngi def son chemin ndànk ndànk ndànk. si Sénégal nit ñi ñemewuñ ko noonu mais beneen yoon dinañ indi beneen war nañoo indi aussi ñoom waa. boxe française aussi. waaw ndax seen kii waaw seen kii yu bees bi. d'accord waaw loolu moom dina baax ñu euh, xam jigéen ñi ñuy wax nii si lutte aussi xam naa bëgg nañ leen gis ñu xool lan la ñuy def lutte waaw lutte bi. li traditionnel wala. li ñoom li lan lañu traditionnel. Ah? olympique ah, ah, non ça non loolu loolu laay rêvé bëgg a dee en am na solo maître merci beaucoup Babacar Niang je rappelle que ni moom combattant en même MMA la ñu koy euh, souhaiter une très bonne chance pour la suite.